taxawaayu jigéen ci activité takk der yi loole la thème bi association bi ëmb ñu daan liggéey ci police sénégalaise daal di tànn. Euh, jigéen ñu ngi commencé ci famille bi ci biir kër yi ñun yaay lañu ñun sœur lañu ñun euh, doom lañu ñun jabar lañu donc. ñun bu ñu nekkee ci biir euh, police bi am na lu nga xam ne touche bi bu nga xam ne bu am solo bu ñuy indi. ñoom nag ñoo ngi wax xamal. jigéen yi indi nañu seen wàll ci administration bi. loolu aussi li nga xam ne mooy violence basée sur le genre yi ndax violence basée sur le genre yi ku nekk xam na ne euh, jigéen buy interviewé euh, jigéen bu nga xam ne dañ ko viole jigéen boobu day am confiance mais bu dee góor la du am ci moom confiance. beneen bi mooy da ngeen di gis ci aéroport yi góor munta palpe ki nga xam ne mooy jigéen jigéen ni moom la ñuy indi mu mun ko fuye ci lu bari loo xam ne lii aussi dañ koy liggéey ci maintien de la paix parce que maintien de la paix bu ñu demee ñun foofu en tant que jigéen góor ñi rey nañ leen ci xare bi jigéen ñi ñoo fay des ak seen doom yi. de partage bi nag dina tax génération bu bees bi daal di xool naka la ñuy gérer ca police ga ñu nekk suñu sukkandiku ci témoignage yi nga xamante ne am nañ ko ci ñu daan liggéey ca police te bokk ci kuréel bi ñuy woowee association des pionnières de la police sénégalaise.